manque deret bi ñu nemmeeku si yenn si ay banque de sang mbootaay bi ëmb ay handicapé te fare si APR bàyyi nañ si xel bu baax a baax waral ñu amal ab journée de don de sang ngir sauver ay bakkan di dinañ ko xamle. section féminine mouvement bi chaque année dañ ko doon organiser par la suite pandémie bi bi mu ñëwee jotuñu woon organiser parce que ñëpp xam nañ ne feebar bi mu ñëwee gàllankoor gi mu indi ci dëkk bi donc bi nekk première édition après Covid donc ñu siy sant yàlla parce que ça s'est bien passé alhamdulilah. parce que don de waa banque de sang bi ñu ñëwee kontaan nañ ci collecte bi ñu am parce que xam nañ ne demande bi bëri na mais itam li ñu fi jot a am nekk na lu nga xamante ne lu ñu rafetlu la donc ñun dañuy sant yàlla parce que objectif mën naa ne objectif bi ñu xaaroon atteindre nañ ko. ñuy rafetlu aussi participation jigéen ñi parce que lu si gën a bëri jigéen ñun ñoo koy soxla ndax salle d'accouchement jigéen ñu bëri dañ ci perdre deret bu bëri donc ñooñu dafay jaadu. ñu am grade bu nga xam ne mu ngi nekk à disposition ñu mën leen ko def donc bu ñu defee lii tey ñu am ci réussite bu toll nii ñun dañuy sant yàlla parce que comme ni ñu wax rek ku joxe sa deret nga sauver ay vie journée bi nga xam ne amal nañ ko ñoom mouvement des handicapés républicains interpellé nañu si njiitu parti bi Macky Sall ngir mu gën leen a gëstu. parti au pouvoir xam na yëngu-yëngu yu ñuy amal ci biir parti bi mais aussi day baax ngay yëglu ndaxte ñun dañoo nekk une couche à part entière. donc am ay jéego yu nga xamante ne war nañ koo def jëmale ko si ñun parce que ci instant de décision yi ñu war a dëgmal nii ñun dañ cee war a am suñu wàll ndaxte loo xam-xam ma dem ma dem ba gën laa xam boppam xëñ na yow bu ñu la jëlee yow ngay valide teg la fa am na lu nga xamante ne doo ko xam ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo ko dund donc ñun ñoo koy gën a xam ñuy lancé waale appel président pour xamal ko ni vraiment ci parti bi la ñu bokk te soxla nañ toogal fa suñu bopp ndax am na ñi nga xam ne. donc loolu tam nekk na li nga xamante ne taxoon na ñu organiser journée bi aussi ñu bëgg a xamal président ni que ni ni ñu doon àndee ak moom rek élection bu jot ni ñu doon àndee ak moom pare nañ pare nañ taxaw nañ di ko di ko déglu moom rek la ñuy déglu tamit nañu nañu jox. nañu teg fi ñu war a teg daal ñu mën a accomplir suñu mission bi ñu am ak. mu doonoon bis bu njëkk bu ñu amal mayam deret gannaaw mbas mi lu toll ci juróom-ñaar fukki poste de sang. jot nañ ko fa dajale.